waa man ni ma gisee Ousmane Sonko man toog na ma moom booba sax àggagul fii mu àgg toog na ma moom mu waxtaan waaye gis naa ne xale la li ma ca gën a neex mooy bëgg na bëgg na diine te nuruwuma koo xam ne bu toogee wor diine nuruwuma ko ndax am na noo xam ne boo koy def ci diine boo ko gëmuloon doo fa àgg waaw waxtaan nan ma moom ciy xóot fexe na ba it li muy def ci diine mu di ko xam bari na fi nag koo dégg muy wax ni politique bee tax mu yëngu-yëngu ci diine waaye gëmu ko sax ba noppi bu waxee tuuti da ngay bu demee tuuti rek nga xam ne kii li mu xamoon jeena lim mënoon a wax nit ñi di ko politique rek la ci yor waaye xamu ci tous kon ni ma koy gisee xale la euh, te xam nga xale bu jóg nii kenn xamu ko ci politique mu jóg bañ lu bon ba taxaw di laaj am réew ah mënees def lu yaakaar ci moom. ba noppi nag mel na ni moom rek moo ci am sax programme buñ ma a xool ne kii lii la ko lii ko tax a jóg waaye loolu ñoom ñëpp dajale naa leen def naa ci ay émission amu ci kenn koo xam ne kii li nga woote jar naa topp ñëpp na ko moom bàyyiwuma kenn waaw sa tur sa tur émission sa tur sa tur ànd bokk yaakaar léegi li ngeen yaakaar lu mu ànd bokk yaakaar rek Ah, ah, waaw bokk yaakaar rek ànd bokk yaakaar rek ma topp ci yow li ngeen yaakaar fu ngeen koy yaakaaree fu ngeen koy wute ji wax ji leeru bokk gis-gis li ngeen gis lu mu gëm sa bopp loolu moom amul yow boo gëmee sa bopp man ma topp la man man kan laa gëm yow ya gëm sa bopp man yow laa gëm ma gëm sa bopp ba sama bopp te ay nit ñu ànd ñoom ñëpp gëm seen bopp kenn du liggéey ku boppam la gëm te ku ne gëm nga sa bopp dem ci kola kola kawe nga àgg suuf rek gëmatoo sa bopp keroog weddi nga sa bopp koo xam ne nag gëm gi nga gëm sa bopp da nga dem ba weddi sa bopp kon waroo woote sa bopp gëm sa bopp gëm sa bopp maanaam di su ko wutee am réew waaw benn bi ci des bis du ñàkk bis bi ñëwee lu muy indi bis du ñàkk te bis di am tey bis la suba bis la ëllëg bis la ban bis nga ci wax bis dana ñëw ma ne ban bis tey da ñëw na ba jeex xanaa du yooyu yëpp topp naa ko yooyu du ay wax nit da ngay woote nit lii laa bëgg danaa taxawal mbay mi dinaa xeex ñàkk gi dinaa xeex euh, kaaraange dinaa ko taxawal dinaa xeex euh, taxawal njàng mi dinaa yaatal nangam dinaa sàmm gone yi di lii daal moom la ñu toppee am réew waaye ay gam sa bopp <coughs> benn yaakaar yooyu ay caaxaan rek boo demee di wax ci aw làkk déggoo ko déggoo ko waaw mu ngoog te ndeysaan kenn ku ci nekk ñemewoo ñàkk a wax olof tubaab yu leer ki jàng araab ak ki jàng yëpp ci yem nag ñoom ñëpp laay wax ki jàng arab ñemewula yàq arab defe ne bu yàqee arab daa mooy yàlla ki yàq ah, français nax nañ ko ba ne ko boo yàqee français faute la te faute dafa diis waaye nag sa lakk nga di ko làkk yàq ki jàng arab ngeen baal ma loolu sax bokkul ci laaj bi waaye daf maa mu yàgg naqari ngay làkk arab arab bi ñëw ne ya ahla Sénégal moom mënul Sénégal yow nga man ko yow euh, son yi bu jóob loo waxee yaa ahla Sénégal loo waxee yaa ahla Sénégal loolu kàcce la du dara yaa ahla Sénégal du doonu ne koy làkk arab da ngaa war a Sénégal déedéet kii làkk arab te mënul gaal di ab araab loola moom da koo dal waaye yow mi nga xam ne yow dégg nga sa làkk booy làkk sa làkk booy lakk arab ba agsi sa lakk waxal ni sa làkk di waxee ya asalaamualeykum ya ahla Sénégal waaye parce que man nga ko waaw tey boo doon wax olof bay wax baatu arab ah, soo ñëwee ci baatu arab bi doo ko ñemee wax ni ko olof di waxee di so léegi la ma waxee nit mu naan ma da yéen ndax nangam ñu jàng alquran mu ne alquran ma ne ko wala nu ne olof ma ne du wax al alquran danaa alquran rek alquran la ñuy wax ah dégg arab la ñuy wax kenn du wax al arab kenn du ko wax waaye kenn ñemewu ko ci yooyu nag moo tax li nu dal dal nu waaye Ousmane Sonko wax di yàlla jeune la te itam <laughs> wax di yàlla li mu wax ne moo ko dugal rek loolu rek yaakaaru na yaakaaru na de dëgg yàlla waaw waxuma ne kenn ànd moom nag ku ne na seet kala waaye yaa laaj ma wax la ci moom man noonu wuma ci kenn waaw waaye nag ku ci ne li kooku nga ma laaj loolu laa